tout le monde naka ngeen def j'espère que vous allez bien j'espère que yéen a ngi belli def jongoma à tout moment bon j'étais en train de faire les produits déjà je tenais à m'excuser hein mes clientes j'étais en rupture depuis deux jours donc par rapport au emballage et consorts donc looloo ma téye woon voilà les produits sont de nouveau disponibles xam ngeen bii xam nga ko xam ngeen ko mooy bii bi bi bi yokk jongama bi à tout moment <laughs> et le et le ventre plat il est là Par contre, je vais préciser quelque chose parce qu'il y a beaucoup de clientes qui me disent que euh, produit bi dafa liquide. C'est normal parce que c'est des extraits d'huile, c'est des extraits de plantes naturelles sous forme d'huile. Donc c'est normal que ça se présente. Euh, je vais vous montrer. Ah. C'est normal que ça se présente comme ça. Voilà, comme ni ngeen ko gisee nii, c'est normal mais quand même avec le temps et tout day dem ba woyal boppam dañ koy diw fépp foo leen bëgg yokk ci seen yaram saa veut dire les seins les hanches les fesses ah les cuisses et les mollets parce qu'il y a des yoo xam ne elles veulent augmenter leurs mollets na seen mollets dañoo naw et tout pommade bibière bi ngeen ciy diw macha allah c'est efficace comme ni ma ko wax d'habitude c'est des extraits de plantes naturels amul benn benn benn produit chimique donc mi ngi noonu bi bibière baa ngi nii c'est un traitement donc ça veut dire pot du doy J'insiste encore, il faut renouveler deux ba trois pots avant de se dire que produit bi lii wala laa parce que produit soo ko utiliser foo mu am baas sa yaram ba pare parce que day ñëw fekk ni boobu yaa ngi utiliser yeneen produit lay lait de corps et consorts et vu que c'est encore étranger il faut mu am base sa yaram balaa effet di soog a génn ça c'est un pour la pommade BBL ma jàll nag ci ventre plat bi ma ñëw nag ci ventre plat bi comme ni ma ko waxee d'habitude le ventre plat est unisexe ça veut dire homme comme femme peuvent l'utiliser ventre plat bi góor ak jigéen yëpp mën nañ ko utiliser parce que y a pas de produit chimique encore une fois te tamit nag lu jigéen mën a utiliser góor mën na koo utiliser même BBL bi sax góor mën na ko utiliser mais nag comme que voilà yéen góoñu moom mooy loolu te ñu ci bëri ndeysaan ak seen liggéey vous êtes tout le temps au bureau la famille bi les hommes homme comme femme vous pouvez l'utiliser parce que ça va vous faciliter la transit day gën a accélérer processus bi pour graisse bi gën a gaaw a toj sooy diw ventre plat bi def sport moom hmm, y a pas y a pas meilleur duo en fait c'est un truc de malade donc ventre plat bi mi et encore une fois concernant le ventre plat nag par contre je vais attirer votre attention sur ça les femmes enceintes ñi nga xam dañoo accoucher par césarienne encore une fois xam dañu leen wasin bees par césarienne produit ventre plat bi doo leen ko mën a utiliser parce que le produit il est fort il veut soo ko appliqué dès que vous l'appliquez sur day pénétrer directement épiderme bi dem attaquer graisse bi te des fois les césariennes vous avez l'impression que kaw wér na mooy extérieur bi nii alors que ci biir dafa des te tamit sa sert à ngay indi sa bopp yeneen jafe-jafe donc moi à chaque fois que une femme me dit bi ma accouché yàggu dama lay laaj ndax césarienne nga def wala par voie basse ñi accouché par voie basse nag mën ngeen ko utiliser euh, un mois après votre accouchement ah comme ça daf leen di aider si seen biir gën a dellu et tout mu delloo euh, biir bi bu baax ba pare toj graisse bi ventre plat bi nag mën ngeen ko appliquer sur le femme bi ci ginnaaw mooy pli pli yi vous pouvez l'appliquer aussi sur les avant-bras ainsi que sur les cuisses et les mollets ah le ventre plat voilà encore une fois c'est unisexe góor ak jigéen yëpp mën nañ ko utiliser noonu seen ngi nii BBL ventre plat BBL bi 17500 lay jar ventre plat bi 15000 lay jar combiner les deux c'est 32500 vous pouvez prendre au détail vous pouvez prendre aussi les la, la gamme en même temps aussi les femmes enceintes ñi may bind di mën naa dañoo bëgg jënd pommade BBL bi pour augmenter leur forme durant leur grossesse pommade BBL bi du jàpp ça marche pas pour les femmes enceintes en tout cas ça marche pas à ça marche pour cent parce que moi je veux pas prendre risque donc dama leen di wax toujours li ci nekk produit mi amul benn danger du la indi benn effet secondaire mais le truc en est que femme enceinte elle dégage une chaleur supérieure à la moyenne donc de ce tàngooru yaram boobu day def ni produit bi du jàpp du jàpp donc mën na la hydrater nag moom prévenir vergetures yi et tout sa yaram nooy ak lépp mais pommade bi biel bi du jàpp donc les produits sont là c'est de nouveau disponible si vous voulez passer votre commande le, le... donc voilà le numéro pour vos commandes vous pouvez m'écrire sur WhatsApp parce qu'en fait sur euh, Snap beaucoup de messages ainsi que sur TikTok et consorts mais ku bëgg a passer nga ma directement sur WhatsApp wala nga woo sur l' normal euh, mi ngi noonu aussi concernant les livraisons si vous êtes à Dakar vous pouvez payer directement à la livraison si vous êtes dans les régions et tout on a aussi notre façon de faire vous payez d'abord les produits et la livraison ñu tegal la ko ci mu ñëw su ñëwee nga fay oto bi la mu jox produits donc je pense qu'on a fait le tour encore produit ba nga am forme yi nga bëgg mën nga arrêté traitement bi te soo arrêté traitement bi say forme du dem su dee da nga traité ba sa biir dem tamit sa biir du ñëwaat soo maintenir sa alimentation soo maintenir sa alimentation te ba ñu def perte de poids subite les les formes restent et partie yi nga traité ba mu plat aussi dafay des. voilà ventre plat bi tamit soo leen demee ba am effet bi ngeen bëgg ça veut dire soo leen demee ba seen biir plat. Euh, parties yi ngeen bëgg yëpp graisse bi toj mu toj comme ngeen ko bëggee da ngeen di maintenir seen alimentation aussi après doo bàyyeeku di lekk n'importe quoi di reprendre du gras parce que ces produits là c'est des produits naturels dafay traité jox la li nga bëgg waaye ci kaw après nga am maintien bu baax parce que maintien c'est la base faut pas se laisser aller mi ngi noonu GP yi nag comme d'habitude euh, ñi nekkul Sénégal dangeen may booleeg seen ay GP parce que moi je avec les GP avec euh, DHL et parce que dañuy faral di malmené po yi plastique bu dëgër la mais am na ni ñu koy sànnee rek seen bagage yi ak yooyu noonu rek après le produit va se renverser et puis c'est pas intéressant donc mi noonu aussi ma attirer seen attention ci lenn les produits. voilà je tenais à quelque chose aussi ci pommade BBL bi parce que je reçois plein de demandes comme quoi que est-ce que pommade BBL bi dafay yëkkati dafay yëkkati say ween ça veut dire si les seins sont tombés est-ce que Comme vous me voyez, moi, j'ai les seins normaux en fait. J'ai pas les seins en forme de pomme et tout. J'ai les seins normaux. donc pommade BBL bi sa augmente ça veut dire fi nga diw fu nekk dafay yokk ba pare dafay tonifier peau bi. dafa koy tonifier parce que ya des actifs qui sont présents que pour ça pour tonifier la peau parce que ça sert rien aussi nga am say forme génn nga def jongo ba pare sa yaram lâché non ça tonifie la peau et ça augmente le volume mais ça ne remonte pas les fesses ça ne remonte pas les seins cest dire lu la yàlla bindee rek c'est-à-dire si vous avez les fesses qui tombent légèrement ça va juste augmenter le volume, mais ça ne va pas les relever, encore une fois. Donc, mes chéris, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Et aussi, une dernière chose, nous pour mon les pour euh, nga gis ay résultat ñëpp bokkuñu bëgg-bëgg y a celles qui veulent avoir des formes comme moi y a celles qui veulent avoir juste ce qu'il faut am na ñoo xam ne dañoo am ay biir yu ngande am na ñoo xam ne seen biir yi dañoo yem ñëpp bokkuñu problème donc c'est un traitement tout dépend ci nit ki li nga bëgg am na ñoo xam ne elles veulent juste avoir un peu de rondeur am ñoo xam ne dañoo bëgg toll nii yaa ma gën a naw donc ku nekk ak li nga bëgg mais le truc c'est que il faut suivre le traitement il faut jënd benn pot deux trois c'est au fur et à mesure ngay utiliser produit sa forme di génn di génn ba nga yow nga gis ne doyal nga lii nga bëgg ci forme nga arrêter traitement bi mais arrêtez de me dire combien de peau je peux utiliser pour ma am ay résultats yu extraordinaire ndax yaram yëpp bokkuñu y a ceux qui ont la peau dure et y a ceux la peau beaucoup plus réceptive am ñoo xam ne benn peau la ñu jël commencé gis am ñoo xam ne c'est au bout du deuxième peau la ñuy gis seen bopp mais l'un comme l'autre foo leen jaar di ngeen am résultat j'insiste sur le ventre plat nu sa biir tollu rek su dee da nga am biir bu mag su dee pati yi ngay traité dañoo bëri affaire yi ça peut pas se faire en quinze jours c'est un traitement te nga la yàlla soo leen jëndee benn pot bu pot bi jeexee renouveler parce que un pot munoo am biir bu ngandee ba pare nga bëgg benn pot sa biir toj ba jeex c'est impossible c'est juste des produits ce n'est pas une baguette magique xam ne da nga koy utiliser tey quinze jours sa biir dem yépp c'est impossible nànk nànk man mii ndey Miliki j'ai pris mon temps j'ai fait di def nànk nànk nànk nànk ba ma ba ma li ma bëgg ma am ko ci ba ñeneen ñi di def la même chose donc les clients s'il te plaît apprenez à renouveler bu lay utiliser benn pot rek nga ne ah biir bi dem na tuuti su demee tuuti ça veut dire que mi ngi def effet donc il faut renouveler ba sa biir dem comme ni ko bëggee à 100 pour cent nga sa bopp y compris que la pommade bibielle donc s'il vous plaît c'est un traitement